الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء حي على الصلاة
وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية واملأ فؤادك بالرجاء
الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد mbokki jullit yi noo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem mbokki jullit yi ñu xam ne sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ñaareelu source ci lislaam mooy leeral alquran moo ñëw di dëgëral alquran ci mboolem santaane yi nga xam ne alquran da koy santaane sunna soos yi waxyu la wu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii mooy li nga xam ne mboolem kuréeli jullit yi loolu lañu xam ci jëmmi jamono ci jamono yu yàgg am nañu feeñal xalaat di weddi sunna di wax ne alquran rekk doy na ba tax al imaamu shafii rahimahullah ci téereem boobu ñuy wax ar risaala mu wax wax yu am solo ci tontu wax yooyu yi nga xam ne tàmbali woon na di feeñ ci ay jamonoom am ñuy wax ne alquran doy na soxlawuñ xadiis wala soxlawuñ sunna loola nëbbu ba jëmmi jamono mu feeñaat ci jamono al imaam ibn xasm al andalusi ci ñeenteelu siècle bi yu mel noonu feeñaat ba mu tontu leen tontu yu dëgër ci téereem bi ñuy wax al milal al imaamu shaatibi nekk noonu ci téereem bi ñuy wax al muwaafaqaat ci yooyu jamono yu weesu woon weddikati sunna yooyu wala weddikati xadiis bëggoon nañoo feeñ waaye mënuñoo fexe feeñ ndax boroom xam-xami sunna muy boroom xam-xami xeet wi dañoo àndandoo liir bu bon boobu ñu àndandoo suul ko ba mbiram nëbb mboolem kuréeli lislaam yi ña nekk ci sunna ak ña nekk ci biddaa ñépp d'accord ci ne alquran rekk mënee su caa sukkandiku di dund diine lislaam faaw nga dolli ci li ñu tuddee sunna ñu dem ba jëmmi jamono ca réewum Inde am jëmm ju fa feeñ jamono yi nga xamee ne Inde ci loxoy anglais yi lañ nekkoon ñu coloniser leen nit ku ñuy wax Ahmad Khan mi ngi alku 1898 1898 ci la alku moo jóg déclaré waat xalaat boobu yi wane ne alxuraan rekk doy na soxlawuñu xadiis soxlawuñu sunna anglais yi daal koy jël fat ko fonk ko lool di ko jox lépp lum soxla ci alal ndax liñ ko fekk mu doon ku dëgëru fit ci mboolem li jullit yi dëppoo ne nii la mu nangoo taxaw ne du noonu boole ko nag ak weddi lépp loo xam ne xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la rax ca dolli mu ne day ubbee joxe benn fatwa ne araam na ñuy xeex contre anglais yi nga xam ne ñoo téye suñ réew mi kon mu daal di nekk seen benn élément boo xam ne amaloon na leen njariñ lool ci jamono jooju ci lu gàtt jeneen jëmm feeñaat ca Pakistan su réewut ak Inde ndax jamono yooyu menn réew la sax waaye ca fii nu tudd Pakistan ci jamono tey jii ku ñu wax Abdullah Jàkkaralooy doon na jéem a jàng sax xam-xamu xadiis waaye ay lënt yum gis te topp ko rek di jëfandikoo am xelam loola moo mujj àgg ak moom ci mu mujj weddi sunna daa di créer menn mbooloo tudde ko ahlu zikri wal quraan tàmbalee di woote ne alxuraan rek mooy source boo xam ne fa la ñuy jëlee lislaam ak lépp lu ci aju waaye amut leneen luñ ciy boole jeneen waaye ju ñuy wax ahmadu din al amrestori moom it ci réew yooyee daal di créer menn mbooloo tudde ko jamaatu ummatin muslima mbooloo moomu daal di tàmbali ñoom itam di woote ci weddi sunna loolu ay jamono yu yàgg la ndax ca seekal bële weesu la jiitu na 1900 yi loolu lépp wala ca commencement ba lay doon jamono jii nu toll nag mbooloo moomu sooy boo nga ne ki ko jiite ci àdduna jenn waay la joo xam ne fële ca Égypte la jóge nekkoon ca al azhar ñi koy wax ahmad subhi mansour nit koo ki doon na jàngale ci azhar ci 1977 tàmbali di fa tasaare xalaati weddi sunna boroom xam-xam ya nekk ca azhar ñépp moo xam ay salafiyoon lañ moo xam ay suufiye wala leneen ñi àndandoo taxaw ci kanamam jaamaarloog moom weddi li muy wax jéebtaane ko ba tax ñu dàq ko mu bañ a nekkati ab jàngalekat ci al azhar ci atum 1987 ba ñu jot koo tëj sax ñaari weer biñ ko génnee ci kaso ba nag mu daal di tàmbali comme que jàngalee tut tàmbali di tasaare ay xalaatam ci ay téere yu muy bind ay article yu muy bind ci lenn ci ay journal di dajale ay nit di wax ak ñoom ci benn centre boo xam ne da ko créé tudde ko centre Ibn Khuldoun continuer ca loola ba ci année 2002 bi weesu ci la daw dem Amérique gannaaw boo xamee ne boroom xam-xami Azhar dajaloowaat nañ génne ab fatwa ne moom mii génn na lislaam tubbi na ànd ak mboolem ña nekkoon ca centre boobee mu créé woon muy Ibn Khuldoon ñi jàppaleen ñoom ñépp tëj moom mu daal di daw dem Amérique dem ca benn état bu ñuy wax Virginia créé fa benn centre tudde ko centre international du Coran centre am boobu nag ci la ubbee ay site internet commencé nag di jokkook àdduna bépp di bind fenn fu nekk di sànni di jaxase di tasaare xalaati weddi sunna ba ci lu yàggul rekk am na article bu mu ca bind boo xam ne daf cay damu di wane ne wooteem bi tey àgg na fépp ma nga Asie ma nga Afrique ma nga feneen jaadu nañu xam mbokk jullit yi kuréel boobu seen lenn ci seeni wax ak seeni pas-pas la ca jëkk mooy ñoom ñoom la ñuy tudde alquraan yi yoon maanaam ñoo xam ne dañuy askanoo alquran kese waaye dañoo weddi sunna jumlatan wa tafsilan lépp lu aju ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko écarté teg ko fële ne bokku ci ñaareel bi waxi boroom xam-xam yi yiñ xamoon nun yépp moo xam waxi ahlu sunna la moo xam waxi ahlu tasawuf la moo xam waxi chia la yépp dañ ko jël teg fële ne seeni xalaati bopp la ñuy jël rek xalaat ci alquran direct rek waaye kenn du tuxal waxi kenn alquran dañ koy firee ak seen xelum kese waaye duñ sukkandiku ci leneen comme que xadis amu fi loolu rek lañ mën a sukkandiku ñeenteel ba dem nañ ba àgg ci ne nit ki bi dugg ci lislaam duñ ko waxloo ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammad rasulullah waaye nee nañ ashadu an laa ilaha illa allah rek doy na duñ ci boole muhammad rasulullah ji waa ji dem na ba àgg ci ne jullit yi dañuy bokkaale ndax fu ñu tuddee yàlla tudd fa yonent ba ci biir sitam boobu yi nga xam ne fa lay binde xalaat yi ndax nee na sa suñ dikkee ba ci fa ñuy dugge ci lislaam sax duñ ko yemale ci yàlla waaye dañu ci wéetalaale muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon seenu réer àgg na ci kuy dugg ci lislaam dañ lay wax loo rek ashadu an laa ilaha illallah mu doy ku ñuy nodd bu ñuy nodd itam buñ ne ashadu an laa ilaha illallah duñ ci boole ashadu anna muhammad rasulullah duñ tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu li nga ci jëlee mooy weddi wuñ sunna yam ci waaye dañoo weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo weddi yonent bi alayhi salaatu wa salaam bokk na ci seeni jëf ak seeni njaaxum mooy seenug julli amutum njàpp dañuy def la ñuy tudde julli rek waaye ànduta ko njàpp seenug julli it amul wenn melokaan am na ci seen biir ñoo xam ne ñaari rakka képp la ñuy julli julli yépp am ci ñoo xam ne ñetti rakka la ñuy julli am ci ñoo xam ne sax dem nañ ba ci benn rakka di ko julli kon julli ga daanaka melu nen seen njiit tey ci kaw suuf muy Ahmad Mansour subxi Ahmad subxi moomu weddi na ni jullit yi di woore nee na du noonu tudd ay façon yoo xam ne nee na bu ci nekk mënees na caa woore noona waaye nii ñuy woore daal du noonu ba ca tegu weddi nañ ne lépp bépp sanction boo xam ne nit da koy def ci lislaam ñi war koo dóor ñu ne dañ koy dóor wala dañ ko war a sànni ay xeer ba mu faatu weddi na loolu nee na loolu amut weddi nañ bépp masala boo xam ne dafa aju ci wàllu nit ki gannaaw bu dekkee su fekkee ne masala moomu saxul ci alxuraan te kenn ku nekk xam na ne li nit ñi gëm li nit ji gëm ci liy nekk gannaaw dekki li ci ñëw ci sunna boo ko doon peese ëpp na genn wàll gi maanaam lu ëpp cinquante pour cent ci li nu gëm nun tey ne day xew gannaaw bu nit ñi faatoo lool ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nekk kon ki weddi loolu ba jàpp ci alxuraan kese sa pas-pas moom lu manqué lay doon lu ñàkk a doy lay doon yu ay lëj lëj yu bari di nekk ci sa kanam yoo xam ne doo ko xam foo doo xam foo koy firee di am nee nañ itam ci tubbi génn lislaam itam dara waru ko kum neex daal nga dugg bala neex nga génn noonu la ko gis ba tey it mboolem téere yiñ mas a bind ci lislaam nee nañ yépp dañ ko war a boole lakk ko wala ñu suul ko ba mu des fi rek ab kaamilub alxuraan boo xam ne moom la nit ñi yor di ko jànge waaye téereb xam-xam moom amut ci seeni xalaat moo xam téere xadis ya moo xam téere ya boroom xam-xam ya taalif moo xam téere tafsir quraan ya la yépp nee nañ dañ ko war a boole lakk ko wala ñu suul ko yor kaamilub alxuraan bi di ci jàng di ko firi ci suñuy xel loolu mooy seen pas-pas ci loola la ñuy woote lii nag moo tax boo xoolee seenu doxiin ak méthodologie bi nga xam ne ci la ñuy jaar pour weddiloo nit ki sunna fa ñuy tàmbalee mooy saxiixul buxaari moom la ñuy njëkk a doya dal moo tax ahmad subhi ci boppam boo demee ci sitam boobu mi ngi wax ne nun ñi nga xam ne noo sukkandiku ci alxuraan nee na depuis 40 ans ci gannaaw kon ma ngay dellu ca 1977 wala lu ko jiitu nee na depuis ñeent fukki at ci gannaaw danoo indi benn initiative boo xam ne mooy fonk gi jullit yi fonk saxiixul buxaari ca azhar nu wàññi ko maanaam ñu fexe daal ba fonkeel googu dañ nee na nag nu xotti aw yoon woo xam ne ñi ñëw suñ gannaaw te gëm li nu gëm jaar nañ ci yoon woow yi mu ne waaye nag loolu teg na nu nun itam peen boo xam ne ab yan bu diis la boo xam ne yanu nan ko ca loola fii mi ngi fi wax ne jamono ya ma nekkee ci sunna noonu lay waxe de mu ne jamono ya ma nekkee ci sunna te doonoon ku ku yem nekkoon itam koo xam ne dama daan woote nee na ca laa tàmbali woon di critiquer saxiixul buxaari yi nee na jël ko di ko gaaral ci alxuraan lu ci juyoog alxuraan ma dindi ko di ko dindi nee na ba ca fin ba ma mujj sax turwe ne buxaari mi ndekete noonub lislaam la nee na mbir ma continuer ca loola ba 1987 ci la door a àgge nag ci ne daal alxuraan kese kese doy na waaye du buxaari rek waaye téere yépp dañ leen war a sànni kon nga xam ne méthode bi ñuy jël mooy jël téere bi gën a wér ci xadis ñu fexe ba ne téere boobu wérut su wérut nag yeneen yi ca des seen mbir day daal di yomb moo tax léeg-léeg nga toog fi dégg ay ndaw wala ay nit sax ñuy wax ci saxiixul buxaari boo déggee ñi ci wax yow da ngay tiit nit ñoo xam ne léeg-léeg ñuy askanoo sax lislaam wala askanoo sax këru diine di wadd di dal ci saxiixul buxaari di ko doyral ak di ko tuutal soo ko déggee te xam yii yow da ngay am njàqare ndax doo xam ñii fan lañ jëm saxiixul buxaari bu rotee téeri xadis yi ci des yépp dañuy rot ndax boroom xam-xam lislaam ak sunna dëppoo nañ ne mooy téere bi gën a wér ci kaw suuf gannaaw alquranul karim wala bu leen neexee ñu ne mooy téere bi gën a wér ci téere yi doomu aadama taalif kooku mooy saxiixul buxaari kooku nag boo dikkee attaqué ko ba suufeel ko sànni ko ci suuf kon dara dootu des ci sa kanam ñoom ci seen bopp dañuy reconnaître wax ne seen diine bokkut ak diine yi jullit yi Ahmad Subhi moomu laaj nañ ko question boo xam ne mi ngi ci sitam bi ñu ne ko yow lan moo tax waa Azhar ñi tuumaal la dangaa ne la dangaa tubbi génn ci lislaam mu ne ko mu tontu ne lahum diinuhum wala naa diinu naa ñooñu dañoo am seen diine noonu itam nu am suñ diine kon noonu leer na nañu ne nekkuñu ci diine lislaam daal di commencé di nettali fa nga xam ne fa la jaar ba àgg ci ne alquran wa kafa dem ba àgg ci ne alquran kese doy na fukkeel ba ak juróom ci tomb yi may tudd moo di bokk na ci yi leen di ràññeele dëgg dëgg dëgg ñu nekk ci ngër mi mooy ak réer gu metti xam nga ne xam-xam bu lislaam dees koo war a jànge ci ay boroomi xam-xam waaye boo tëbee ne damay xalaatal sama bopp loolu mooy tàmbalikaayu réer seen genn jenn waay jooju nga xam ne moom laa tudd sànq muy ahmadu diin mi ngi nettali moom jamono yëpp nekkee di jàng xadis ak di ci gëstu li lay won ne réer gu metti ak topp xel moo leen dugal ci li leen dal mooy waxtaan ci mbirum boppam mu ne benn bés dama doon jàng ci téere tafsir yi ba agsi ci sunu borom tabaraka wa taala fi muy waxe yaa ayuha alladina amanu laa takunu ka alladina aadaw muusa fa baraahu llahu mimma qaalu wa kaana inda allahi wajiha nee na bi ma agsi ci laaye jooj yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf ciy wax ne yéen ñi gëm yàlla bu leen nuroo ak ñi nga xam ne dañ doon lor Muusa alayhi salaam bu leen nuroo ak ñi nga xam ne dañ doon lor yonent yàlla Muusa alayhi salaam mu ne waaye yàlla setal ko wecc yàlla setal ko wecc ci tuuma yeñ ko doon tuumaal aaya ji loolu lay wax nee na bi ma ñëwee ci téere tafsir yi ba agsi ci aaya jooji may fekk fa xadiisu Abu Hurayra bi nga xam ne buxaari moo ko génne ak tirmisi xadis ba di wax ne banno israil dañoo tuumaal Muusa ne yaram wi dafa ràmm dafa ràmm maanaam dafa am xeetu feebar bu nekk ci aw yaramam xadis boobu li muy nettali nee na Muusa benn bés mu ñëw ca dex ga wala ca géej ga di sangu summi yéreem dugg ca géej ga teg ko ci aw doj doj wa daw ak yére ya dem noonu la ko xadis ba waxee ci saxiixul buxaari mu génn di dàq doj wa waa bandoo israil génn gis ko gis yaramu neen wi ñi xam ne lañ doon wax du dëgg nee na Muusa jël aw yatam bàcc ko doj wa mu taxaw mu daal di jëlaat ay siram sol nee na bi ma agsee ci loolu bi ma ko liiree samam xel jaxasoo sama xel mënatu la dal ma nekk ci tiitaange lënt yi topp ma lënt mu ñëw weneen dikk tegewaat ca kaw nee na ba mujj àgg ci weddi weddi sunna waaw loolu lan moo ci nekk lu war a mën a jaxasam xel ci ku xam dara sunu borom tabaraka wa taala bu amee ab yonentam ay noonam di ko tuumaal ne yaramam wi nangam da cee nekk borom bi tabaraka wa taala bëgg leen a woon yaram wa ndax ñu xam ne loola nekku ci ndax ñooña luñ gis rek la ñuy gëm waxi kese doyu leen yonent bi yàlla ngi ci seen kanam di wax li muy wax gëmuñu ko yàlla bëgg leen a woon ñu teg ci seen bët néeg ba yonentam di sangu mu digal aw doj mu daw ak yéereem mu génn ñoom ñi génn gis ko ne ah kii kat kon ndeke liñ ko doon tuumaal amut loolu day ku gëm yàlla xam na ne waxuma aw doj di daw a ki yére waaye lu gën a rëy loolu sax su ko borom bi tabaraka wa taala ne nekkal mu nekk nun de gëm nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk na ci ëpp toog na ci bi mu daataan am minbar bu muy xutbaa saxaaba yi ñoonu ko nettali am na benn genn gaañ ji maanaam ab ëkk bu ñu ko defaraloon boo xam ne ca la daan taxaw sallallahu alayhi wa sallam di xutba ba mu yàgg ñu defaral ko benn minbar muy ñëw di taxaw ci minbar bi bis bi mu njëkkee taxaw ci minbar bi di xutba ëkk boobu yi jooy na ba ñépp dégg ko muy binni kon ki mën a gëm loolu gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaral nañ ko weer wi gëm ne mbëtt wax na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ki gëm yàlla te gëm xam man-manam ak kattanam xam na ne lum ne nekkal day nekk kon nag ku jàngul xam-xam bu mel noonu sam xel jaxasoo demoo ca boroom xam-xam yi ñu jàngal la loola mooy war a lënt mu jëkk ci sab xol mu nekk daal di koy jaxase mbokki jullit yi lu mel ne lii nuy wax li nu ci xam ak ban ko xamee jiitu na tey mësuñu cee wax it nag waaye bu taxee ñu taxaw fii di ci wax di nettali historique bi nga xam ne kuréel bii ci la jaar ci lislaam di nettali pas-pas yu bon yi nga xam ne moom lañ fas suñ taxawee fii di ko wax ak yéen dafa am sabab sabab sa moo di pas-pas bii ak ngir mii dafa tàmbali di feeñ ci sunum réew dafa tàmbali di feeñ ci sunum réew di jaar ci réseaux sociaux yi am ay ndaw yoo xam ne ñu ngi tàmbali di ko jël di taxaw carrément di weddi sunna àgg ci di wax ne julli ñaari rakkaa la suñ ko déggee defe ne lu bees la loo xam ne ñoo ko créé wala dañoo fent tiit naa lool ca waajooje nekk ca Amérique di damo ne léegi ab wooteem àgg na fépp ne ak jokkoom mën naa agsi ci mel ne ñoo ñii ndax fenn fu nekk ma nga fay jokkook ay nit te kuñ jàpp ndalal ay mbiram la ba mu bari man-man lool te ndaw li ndaw ñi fii ñu toll nii lu nekk mën na leen a yóbbu ci réseaux sociaux yi ak ci wàllu jox ci wàllu joxe loolu nag suñ ko déggee jaadu na jullit yi ñu teel a xam lu mel noonu ni mi ngi tàmbalee burux di dugg ci sunu société jaadu na nu protéger sunu bopp protéger sunu njaboot ba ñu xam ne lii kuréel bu réer la kuréel la boo xam ne fu mu mas a feeñ boroom xam-xami lislaam daje nañ génne ab fatwa lim seeni tur ne diw ak diw ak diw génn nañ lislaam ndax weddi nañ sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noona la boroom xam-xami lislaam yi di mës leen di jëflanteeg ñoom jëflanteeg ñoom moo xam ca Inde la moo xam ca Pakistan la moo xam ci Azhar gu yàggul gii la fenn fu ci nekk seeni boroom xam-xam noonu la ñuy def nun nag mënaguma wax ne bari na ba àgg ci kuréel waaye dañuy wax ne xalaat bi day mi ngi fi seeni kàddu it dégg nañ ko ñuy wax kon xutba bii li ko tax a jóg mooy xamle ñooñu seen histoire fan la jaar xamle it seeni pas-pas mooy lan danañ ci teg nag bu nu ko sunu borom tabaraka wa taala mayee beneen xutba boo xam ne mooy wone caaxaan yoo xam ne ak ñàkk solo goo xam ne ngir moomu ñàkk na ko solo ak dëgër goo xam ne sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgër na ko ba kenn mënta dund lislaam te jàppoo ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والثبات عليه حتى الممات وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والثبات على ذلك حتى نلقاك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واقم الصلاه